édition je l'ai oublié mais da nga génn gouvernement matul sax une semaine ñu naan euh, y a un rapport euh, de la Cour des comptes euh, sur des dépenses faramineuses yoo def euh, concernant les fonds destinés à la Coupe du Monde euh, une histoire de location de véhicules de 200 millions euh, alors enquête bi daf la daf la fekk foofu est-ce qu'il y eu un rapport. te mu doon l'occasion may mun na ci. photo boobu ma leeral d'abord enquête amugul woon le président de la République nous avait informé en conseil que Cour des comptes comme d'habitude day def li ñuy wax ay audits réguliers ministère des sports ak beaucoup de ministères d'ailleurs xam nga am na d'ailleurs sama collègue yi fi jaar c'est l'occasion pour man me remercier leen ci sincérité boobu mooy li ñu wax ni c'est c'est un c'est un audit régulier de plusieurs ministères mais président ñun informé woon nañu ni ministre des sports bokk na ci pour les dépenses de la coupe d' Afrique d' abord xam nga la nit ñi di ignorer c' est coupe d' Afrique Cameroun ak coupe du monde. donc vous euh, coupe d' Afrique Cameroun. d' abord ak coupe du monde. c' donc euh, beneen mooy li ñu koy wax audit bi commencé gul et li ñu wax naan ay location véhicule deux cent millions ay bureau soixante millions ça n'a rien à voir avec l' audit bokkul loolu sax bokku ci. mais nan ngeen mun a loué oto deux cent millions. non loué wuñu oto deux cent millions d' abord je dois <laughs> rappeler loué millions. c'est la politique de l'État te le président la République de xaw a yëgoon ngeen décret bu mu génne pour demander ñu arrêté rationaliser des dépense de véhicules ak ay carburant mu ni dootuñu jënd ay 4x4 dootuñu jënd ay oto donc ministère buy def ay opération di tourner suñuy dem sax ñun tourner ak président dañuy la ay oto pour te dire donc 13 opération de location la 13 sur combien de jours mais man yàlla suturaal na ma ba muy eggee décembre ma gis ni luyee sama oto bi mooy luyee egg na ay vingt millions yeneen mission yi une trentaine. mais vingt millions jëndoon na oto dafa nang non non oto ay deux cent cent cinquante millions lay jot. ah ça damay wax rek ni 4 4. réel di jaar quoi non seen 8 8 yi pourquoi duñu leen jox ay oto 60 millions. 50 millions ça ne vient pas l'essentiel on peut que travailler. waaw ah. oto dañuy liggéey rek c'est tout ñun c'est pas. may mun a wallaay gis ngeen affaire ministre coono gi ci nekk. c'est que il faut que les gens arrêtent. mais bàyyi ñu ñam coono bi bi. mais suñu nangu woon président dugal de pour te dire quoi xoolal pour te dire coono gi ci nekk donc ma bind pour ñu autoriser moom ma jënd oto. mais ministre yi amul da ngay yëg président daal sax tel ministre mu ni conseil ñu amul oto ñu yëkkati mu ni autorisé yi au moins ñu am oto dama ne wax naa ko premier bi ñuy dem. passation man ne ko monsieur premier ministre il faut ngeen xoolaat loolu donc kon man luyu ma oto deux cent millions jënduma ay bureau soixante millions c'est ay bureau la ñuy aménager quatre bureaux la xaw ma plusieurs bureaux plusieurs bureaux factures yooyu yëpp soo ko dajalee mooy soixante millions ñu ni bureau jatara soixante millions mais il y a nuire ak loo xam ni peut-être ni ma génne ci gouvernement ils ont voulu xëpp ci suuf wala jaf ay affaire mais mais ñan ñoo ñan ñan nga jàpp ne. ils ont eu cette loolu lépp amul solo man li ma am solo mooy man li may def te li may def président xam na ko président Idriss Seck dama koy informer premier ministre xam na ko c'est vrai man du ma def loo xam ni may mun a jom naa def loo xam ni. président Idriss Seck mais mais mais xoolal dinañ ma wax wala def ma may. sëñ xoolal dañ ne. y a eu dara budget de 14 milliards pour la participation des Lions au Euh, on est éliminé en huitième de finale euh, alors que le budget total c'était 14 milliards on est éliminé en huitième de finale vous avez dépensé 11 milliards 35 millions. Euh, euh, Maïmouna nit ñi dañuy spéculer. presque 85 pour cent. 90 pour cent du budget les gens spéculent. Hmm. donc les gens spéculent xamuñu exactement sax li ñu je sais que. budget bi maa ko président conseil des ministres. 14 milliards dafa nang rek proposition de la fédération ak la direction de la haute compétition ma dem conseil des ministres présente ko président approuvé ma ñëw jox ko le DAGE mu mais budget bi da ngeen di jàpp ni d' abord avant coupe du monde bi prépara phase préparatoire yi bi yëpp presque man may ñëw fekk exécuté nañ ko man ma ñëw phase lan laay def prospection ak commencé compétition. ñu dem après fan la ñu éliminer nga ni huitième. huitième de finale. mais est-ce que tu sais que budget bi l'essentiel du budget xam les primes des joueurs beneen rubrique bi bi ëpp location avion yi Air Sénégal beneen bi ci topp frais d'hôtel et de restauration maintenant rapport audit. donc yow bi ngay ñëw euh, quatorze mille euh, onze milliards trente cinq millions yooyu. Euh, bi ngay ñëw fekk préparatoire bi pare na. du yow yaa ko dépensé non non non moo tax dina ay match deux milliards ak yi kon kon kon Matar Ba moo ko dépensé ci détail dafa ndànk rek. dama lay ah, wax bu dul yow kay sa Matar Ba mais ok xam nga dama dugg ci dama lay wax dama lay dama lay di dimbali sax dayet ak respect au respect euh, par respect au Sénégalais mais l'audit est en cours ndax bi ko président annoncé ak bi may dem euh, ñuy commencé je pense ñu ngi ci ay bientôt euh, deux mois bientôt mu mu leer donc kon man côté boobu aw ma ci benn crainte. c'est vrai que mon je suis tellement. je suis mais ñaata nga dépensé exactement. non man dépensé wu ma. <laughs> non je veux dire bi nga ñëwee euh, jël affaire bi en cours bi nga ñëwee def nga audit ci passation de service bi euh, y a tous les documents. Bien tout sûr, est donc bi nga ñëwee 14 milliards bi ñaata lañ ci dépensé. may mun a l'État aussi. gis nga li ngeen di c'est ça d'ailleurs qui expose les gens et les ministres cest à les gens ont l'impression que les ministres et les gens ñi liggéey ci État ñu yor xaalis. dañuy yor di manipuler ay milliards. mais on ça ne mais xam nañ procédure yi mais bi nga ñëwee ci sa document de passation fonds wu 14 milliards yooyu ñaata lañ la ci bàyyil. c'est-à-dire c'est ça qui va être la clé. non bi ma ñëwee dama fekk ni phase préparatoire bi jeex naa ko ba day dernier match préparatoire bi day ba ma ni Matar ba mu dem représenté ma mooy Sénégal Iran xaw Sénégal Bolivie bi ñu doon def euh, en France mooy suñ passation ba ma naan ko mën na mu dem représenté ma vous vous rappelez de ça kon phase préparatoire fekk moi phase préparatoire deux milliards et quelque la. deux milliards sax lañ beneen bi cinq milliards et quelque lañ woon def première tour. cinq milliards cinq milliards. suñu paree premier tour après il la deuxième phase mooy euh, huitième quart demi ak final chaque phase day nekk presque un milliard cinq. donc là euh, phase préparatoire deux milliards. premier tour ba huitième de finale. cinq milliards donc waroon ngeen taxaw ci sept milliards non non non pour kii kii la nu mu tudd phase de poule. mooy cinq milliards. waaw donc fa soo soo paasee loolu après huitième a ci topp après quart. huitième ñaata après bu nekk presque un milliard cinq ndax da ngay calculer restauration bi la ak euh, hôtel yi ak prime yi. léegi li ngay jàpp donc huit milliards cinq. huitième de finale lañu taxaw. da ngay jàpp xoola soo demee huitième après quart. li ci des maintenant da ngay jàpp ni président daf ñu daf ñu may prime prime bi nga xam ne moom lañ qualifié bi ñu éliminé huitième daf ñu fay presque prime kaar ba comme qualifié nañu mooy prime exceptionnelle bañ def donc loolu yëpp soo ko jàppee mais li ci am solo mooy suñu audit moom dina tax dina génne lépp te li ñu ci dépensé ci hôtel liñ ci dépensé ci prime liñ ci dépensé ci avion yi liñ ci léppay leer kon kay où est le problème nañ xaar ba rapport génn su rapport génnee ñu ni ko fàng ñun ñëpp ñu toog wax <laughs> wan sénégalais li ñu dépensé ak li ñu dépensé man li ci dépensé mu nekk ci sama responsabilité fekk may ministre dinaa leen di lii la li ñu dépensé mu ne beneen kii euh, nekkoon ci responsabilité beneen ministre dina ni dinañ ni lii la mais loolu mu leer. et cette histoire de huit cent millions. lequel. huit cent millions. yu ñu yu ñu génnee yu ñu extraire du trésor public. non mais c'est que moo tax man il y a beaucoup de confusion may mun ah mais justement c'est pour expliquer ces confusions écoute may mun a lu tax man mënuma sori ci ay détails comme ça parce que honnêtement moi j'ai pas ces éléments d'appréciation beneen bi ça ne se passe pas comme ça mënuñu extraire comme ça 800 millions de trésor public le trésor public c'est une comptabilité d'État le trésor public c'est des chapitres c'est des lignes bu nekk fu muy lu ñu fay jëlee xam nañ lu ko fay jëlee ak fu mu jëm. 800 millions yi xon la. mënoo ko justifier non ça n'a rien à voir non non non. comment mais mais mais 800 millions yi. chapitre chapitre lan la moo tax man la man no écoute non 800 millions mënuñu ko génne noonu c'est man xaw ma nuñ ko génnee ndax da ngay jàpp ni trésor man xaw ma. Sadage mooy dem. yow xamal xam nga xamal jàppal ne xaw ma. ah mais Sadage mooy dem dafa nag mais yaay signé de. non defe naa noon non nous on signe que les des xam nga may damay bëgguma dugg si détail. non mais foog nga dugg si non non du ma ci dugg. du ma ci dugg honnêtement dama lay jàppale wax ne rek ni la de publique et l'argent de l'État est tellement sérieux et tellement réglementé que mënuñu wax nii rek ay 800 millions ay 1 milliard ça ne se passe pas comme ça. non non non may mun xam nga problème gis nga cette histoire là boo ko réglé wul fi mu nekk nii yéen a ngi ci eh, yéen a ngi léewtoo sa se mais bu campagne bi commencé ba mu takkarnaase les gars là ne te feront pas de cadeau de bu dee sa responsabilité nekku ci da ko war a wax mu leer bu dee responsabilité Matar Ba bala ñu xam ne responsabilité Matar Ba la li ma la mën a wax daal mooy man sama responsabilité politique mooy président li mu ma dénk doxal naa ko convenablement te li ci des nañu bàyyi bara